jërëjëf jërëjëf soxna yi président Bougane ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di nuyu président Abdourahmane ak gan yi fi nekk ñëpp di nuyu ki ñu tuddee suñu cas zéro muy Mouhamed euh, Ben Diop bi nga xam ne dañu ne bëri rek mu symboliser li nga ne moo tax ñu dajaloo di xeex parce que te def naa ne yegg nañ ci 43 yoo xam ne yii saisir nañ conseil constitutionnel pour démontrer ne li ñu def dara tegu ci tegu ci yoon ba fin te defe naa ne ku nekk mën ngaa indi preuve waaye moom preuve vivante njuuj bi mu ngi nii toog nga doon candidat dem wane sa carte d'identité ñu jox la fiche nga fay sa caution dajale sa parrainage ñëw ne la yow sa bopp loolu kenn mosu koo gis fenn ba Sénégal di Sénégal mastam ñu am Mary Teuw Niane pareil Assome Diatta borom këram ci boppam nekkoon candidat ca dëkkam élection maire yi ñu ne ko gisuñu la ci fichier bi te mu wax kon lii lépp xam nañu ni mu demee ni xale yi di wax ni cas bi demee ni cas bi demee mooy ni cas bi demee mooy gis ñoo xam ne seen taxawaay wér na mu wóor la ne candidat am bii di Ba xajuñ ci moom guddi xajuñ ci moom bëccëg mu ne ñii naa leen jël tegee na leen ci ay moyens yu tappale bu dara lu dul tappale tappale informatique nag lay doon Abdourahmane dina wax ci kaam xam nañu ñun ñëpp suñu benn la nga ñëw ca greffier ñu jotewuñu ak moom dara agent assermenté la ñu jox ko suñu gré mu dugal gis quatorze régions signeel suñu mandataire ne ñu dem leen ñu tiré ñu fan ngeen mës a gisee président bu ñuy tiré au hasard au sort Sénégal rek la ma sàmm amul feneen ñu yegg si jour contrôle ñu ne ñu mais ñun gisuñu seen seen bi ah ñu ne la ah dëkk Kumba mag ngeen di wax ah ana ana suñu parents yi ñu ne ñun gisuñu kele ba kan lañ ko bàyyi woon ñoom lañ ko bàyyi woon kon manipuler nañ sunu réew ba dindi ñu une région sur quatorze ñu ne dégg ne waay ñu ne dix mille parrains yi ngeen yor gisuñu leen xamuñu leen xamuñu leen ils sont inconnus te ñu yor ñun seen i carte d'identité ndax lii lañ ci doon bañ parce que ñun it xam nañ ni yëf ji leen ku ñu parrainé dañ la naan vraiment li ñu bëggoon mooy nga jox ñu sa ne ñu mu ngi nii joxal bu sedd guy ñu dajale ko ay kees i kees ñu yeewu ñëw yegg si ñu ne non dix mille yi gisuñu leen dindi région dindi dix mille terewul ñu dem deuxième tour waaye ñun ñoo ko doon xaar ndax raison bi du dara lu dul seen candidat bi ni ma la ko waxee amul benn taxawaay ca ya fa mu nekk am fa ay problème ca boppam ca biir camp ba dégg ngeen fii ñu naan non moom affaire bi jàppul mayonnaise bi ni ñu koy bi jàppul ministre boo xam ne lii moo toog ca conseil des ministres ba di ko wax ah koo xam ne mooy premier ministre xam ngeen ne ñun ñii ñëpp bu ñu taxawee benn voyage ñu koy def mu taxawee ne kon li am ba am mooy li sëñ Assane wax mooy ñu takku doon benn say loolu dafa am solo li ci des du sax deux mois quarante cinq jours d'abord conseil constitutionnel li ñu koy laaj ci plainte bi ak ci recours individuel yi mooy mu delloo ni suñu parrainage yi nga xam ne dañ koo sàcc tuddul neneen suñu parrainage yi ñu sàcc nañ ñu ko delloo dañu ko sàcc électroniquement kan mooy responsable bi kooku dañuy laaj juge bi mu wax ñu kan ko jël ak kan a ko def ñaawteef yooyu ñu sanctionné ndax mënuñoo am ne ci démocratie ñaata président lañ fi fan ci démocratie xam nañ ni ñuy wotee Sénégal am na ay informaticiens informaticiens yii nag ñoom ñoom it seen responsabilité dinañ ko établir Sénégal il faut que ñuy établir responsabilité yi moo tax ñun suñu plainte dana dem ci ministre contre ministre de l'intérieur bi nga xam ne moom la de dénk fichier électoral commission électorale nationale autonome ci ñu dégg wolof mooy gi nga xam ne yoon may na ko mu saytu élection nee na fichier bi n'est pas à jour maanaam fichier bi motul waa kon conseil constitutionnel ban bu deux mille dix neuf nga wala bu deux mille dix huit wala bu deux mille dix wala bu deux mille ban la ci yor kon loolu lañ bëgg ñu teg ci suuf nañ ñu dellowaat suñu ay parrain ñu xam ban mooy fichier électoral loolu la ñu bëgg fichier électoral bi nañu ko teg ñu ngi koy wax aussi suñu partenaire ñu xam ne lii aussi kenn du ko fi nangul kenn kenn kenn du ko nangu ñun ñëpp pare nañu lii mu lu mu leen jaral jaral nañu lu ko ëpp loolu nañu ko xam waaw jigéen ñi kenn du lekk non lii kenn du ko jigéen du ndaw du mag kon bu ñu bëggee jàmm ci réew mi mooy ñu jël recours ku ne ñu delloo la sa paral ñu dem ci élection ci jàmm ak salaam ku ne ñu jox la sa àq ñu jàkkaarloo ak candidat bi billaay 11h du matin 11h ñu tàqali ko moom maa ngi di woo. yàlla yëpp di nuyu coalition Bougane 2024 di nuyu du lim damay nuyu opposition bu Sénégal ah parce que fi mu toll nii pour gàttal am na beneen opposition bu juddu bu ànd ak population bu Sénégal li nga xamante ni moom laay leeral. dafa am fu ñu tàmbalee te fi ñu tàmbalee mooy ñu xam jafe-jafe yi Sénégal di dund depuis mille 2012 jafe-jafe yooyu ànd ak injustice injustice boobu mooy dox ba dugg conseil constitutionnel parce que defe naa ñun waa gëm sa bopp amatuñu lu ñuy wax ci wàllu parrainage li ñu war a wax mooy injustice bi nga xamante ni dafa dem ba dugg ci suñu justice bu ko defee tollatuñu fu ñu joxeñee baaraam dañu toll foo xamante ni man Assane Diouf en tant que président mouvement dëggal suñu bopp dañu toll foo xamante ni dañu war a dëggal suñu bopp te li may wax nii dama koy wax opposition bu Sénégal candidat yi jàll ak ñi nga xamante ni ñoo toog fii dañu am beneen liggéey boo xamante ni ñoom ki leen ko sas mooy population bu Sénégal te population boobu dafa am résultat yu ñuy xaar résultat yu ñuy xaar mooy élection yi ñu jëm amul joxal baaram élection yi loo yoo xamante ni benn nit la ñu jàkkaarlool depuis 2012 mag yi Sall mu dundal injustice ci Sénégal lu kenn mësta dund te dund joobu ñu ko dund 12 ans ñaari weer moo ci des ñaari weer yooyu tey bi ma yeewoo li ma njëkk am ci information mooy nit ñi lañu dem jëli seeni carte d'identité numéro un numéro deux fii amatul benn candidat amatul amatul vingt candidats benn candidat moo fi nekk muy population bu Sénégal mooy benn candidat mooy suñu jooy yi ñu jooy at yi ñu weesu injustice bi tege ci kaw président Bougane tege ko ci ñii fi toog ñu koy ay at man ma dund ko moo tax bu ngeen yëpp waxuma parce que booy xeex dara ba egg ci cappaandaw gi énergie da koy denc énergie bi la yàlla jox danga koy denc pour bu bis baa nga mën koo fullaal te fullaal ko mooy affaire bi du Bougane du Assane du Tata Mimi du Abdourahmane du kenn ci ñi toog fii Sénégal dañuy jiital Sénégal ba pare ñii nga xamante ni tamit ñoo jàll comme ay candidats ñun xam nañu xam nañu information Macky Sall mën na koy dundee mais ñun ci la ñuy xëy di ndékki di ci ay di ci reer te bu tëdd jotee moom la ñuy jege naayoo moo tax am na ay candidats yoo xamante ni ci seen doxin ci commencement ba xam nañu li xew te bu ñu eggee ci bisu wax dinañ wax parce que élection yi ñëwagul nekkuñu ci élection législative wala élection municipale dañu nekk ci élection présidentielle te élection présidentielle bii ñu nekk nii lenn dong mooy liggéey bi mooy information képp ku ko am ci réew mi te mu nekk loo xamante ni day jalgati suñu doxin ñun nga jël ko nga teg ko ci table bi dootuñu fi nekk di wax wax ju bari wala di indi yenn problème yi parce que liggéey bi dafa am fu mu toll foo xamante ni ñun eggale nañ ko fa parce que président Bougane amul fu mu duggul ci Sénégal amul fu mu duggul dugg na foo xam ne Macky Sall su faa teg tànkam en tant que président am na parrainage foo xamante ni Macky Sall mosu ko teg tànkam en tant que opposant kon bu ñu taxawee ñu ne ñu ay Aly Ngouille Ndiaye ay Mame Boye ay ay Boun Dionne ñooñu dañu jàll parrainage ñun sénégalais war nañ xoolaat suñu bopp xool fi ñu jëm loolu laa amoon lu may wax li ci des dañ ci dem 2024 merci beaucoup